di la jaale ki nga xamante ne mooy Moussa Dioum yan témoignage nga ñu mën a defal ci Moussa Dioum. waaw salaamaaleykum d' abord dañuy nuyu Sénégal yëpp di baalu ñëpp ak di leen baal war ak ah, di leen wax nag àdduna nii la. Hmm. yoo xam ne nablu war na ko bi shay'in minal xawfi wal juu'i wan naqsin minal amwaali wal anfusi wa samaraat wa bashiri saabiriin allaziina izaa asaabathum musiibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hmm. ulaa'ika alayhim salawaatun min rabbihim wa rahma wa ulaa'ika humul muhtaduun àdduna noonu yàlla moo ñu fii indi ci àdduna mm-hmm. dañuy natt si suñu njaboot mm-hmm. di natt suñuy alal mm-hmm. dañu natt ñun jëmm nit ñi waaye nag ginnaaw natt yi nit ñi dañuy séddalikoo mu ñu yàlla jox xol ñuy muñ ak ñeneen ñuy saarit dañuy ñaan yàlla boole ñu ci ñuy muñ muñkat yi parce que moo ñu fi indi te moo ñu yóbbuwaat muy lu tiis lu bett ñëpp parce feebar bi wax dëgg yàlla man mi bari naa ci morom yëgu ma ko woon moo bañ ma ko waxee affaire bi bett na ma lool lool lool. Hmm. waaye nag mbirum yàlla suñu borom la. Hmm. di ci sant yàlla bu baax di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana. Hmm. Moussa Moussa Sénégal yëpp la woon. ñu bokk fii dëkk parcelle mu jiituñu ci lu ñuy yëngu. xam nga nekkoon ci nag suñu mag yaatal ñu amuñu mosuñu am benn xaar ma yàlla. vraiment ba tax tey mu demee nii. dañ ko ñaanal yàlla di ko ñaan yàlla xare ko aljana. te wax dëgg yàlla jour bi mu dem moom ci jour yu nit am yaakaar la. ci weeru koor waxuma laak ci dernier fukki fan yi mm-hmm. xam ne fukki fanu njëgal la mm-hmm. te ñu ñaan rek incha allah mu tombeeg njëgalu suñu borom incha allah mm-hmm. moo jullit yi ko jiitu ak ñu koy fay fekk yëpp yal na yàlla yërëm leen xale leen àjjana lan nga mën a fàttaliku ci moom loola loola marqué bari na Moussa moom mën nañ ay anecdote yu bari wallaahi maa ngi wax rek benn mbapat bu ñu mosoon dem bu ñu doon dem géejawaay jour bu dama doon dem mbapat bi ñu ngi koy romb fii bundu kër Thiané mhm. ci baw yi foofu mu nekk di baw yi quoi man ko xanaa dem moom mbapat bu ñu mën dem suñu kër kër sol daal mhm. jour boobu ma ni ko non non jaru ngay dem man sax damay bërit ay kii laa sol ma jël samay daal jox ko mhm. ñu dem mbapat ba vraiment bari na ay anecdote yu bëree bëri bëri yu ñu mën a fàttali mais daal tey amaana du gisu loolu hmm. dañ koy ñaar yàlla suñu borom rek yàlla mi am jégal yàlla na ko yàlla jégal yërëm ko xare ko aljana ngeen mbooloo bi incha allah non fii nii Moussa moo jaar man sama kër turandoo mu ngi ne la benn kër moo dox seen hmm. fii nii naa fi fooye naa fi def naa fi lu bëri hmm. ama mu bokk tamit suñu ñu textee ba yàlla dogal ñëw fii parce que parcelle ñëpp benn lañ ñooy ànd bokk doon defandoo lu bëri bëri waaye daal ñuy wax encore rek dañ koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko xare ko àjjana incha allah jërëjëf Thank you. Modou Lo dara lañ am raama boobu kenn seen biir kenn bokk na ci biir kër waaye nag rawatina bi nga xam ne nii leen war rawatina bi nga xam ne nii leen war am na Yeah.